ba ñëpp jàngee moom moo ko joxoon moo sëñ Mountakha nih jox leen ko kon kon na na lépp di baax rek ci ci ci xasida rek moom bu ta ñàkk xaju na na nga dëgër na nga yàgg kilifa gi rek ne noonu rek noonu rek bay jóga yang tiga bigara tiga bigara tiga bigara selu aja nah bapak bang eh, jira eh, jira jira jira publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barab bu communication da ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route Belel jàkkaarloog boulangerie Kayndé Fatma woote leen gaaw xarañ liggéey bu tegu ci temps am tali bi gaaw efficace contactel Xaadim